maa ngi tudd Moussa Gueye. maa ngi waaw. ñu fekk euh, si stade bi yaa ngi ñëw di waajal seetaan ci match bi euh, ban ban mooy sa impression d'abord yaa ngi soog a ñëw wala ñëw nga premier match bi. non ñëw naa premier match bi seetaan naa ko euh, gars yi moom football nañu match bi rafet na ni ñu ko war a football jaar na yoon mais bii daal moo des waroon na ëpp ñu wàññi ra tey. <laughs> léegi bii nag la nga ci gis yow. waaw bii de moom Algérie moom équipe bu mag la mais Sénégal tamit nekkul équipe bu ndaw ñoom itam dëgg yàlla yaakaar naa fii si kan bi équipe bu leen gën a dëgër amu fi li ci des daal mooy gëm-gëm bi rek teg bal bi ñëpp bokk ànd benn nekk benn bu ko defee ñu jël ndam li yóbbu ko Sénégal. mais su ma la Sénégal bëriwuñu tax loolu. waaw Sénégal yi bari nañ ñu ngi ñëw parce que ñun rek bi ñuy ñëw ànd nañ ak lu mat six ay six bis yu ne bii ñu ngi ànd ñëpp def mobilisation bu rëy pour bëgg ànd ak gaynde yi jàppale leen bu ko defee nag ñu mën a jël ndam ñu yóbbu ko loolu daal mooy suñu ambition. waaw ñun euh, ay étudiants lañ Sénégalais lañ. waaw ñu ngi fii di jàng. naka fii situation loolu nu muy demee. waa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu ngi ci condition yu baax ñu ngi sant yàlla bu baax daal. te am ngeen billet teel ngeen billet na ñëw. yi teel naa ñëw dañoo dem euh, fekk fa suñuy billet ñu dem ñu jël rek ak suñuy diis lépp ñu ñu ñëw mais ak fierté ànd bëgg Sénégal am ndam loolu moom moo ñeen di tey. na ngeen na ngeen fas yéene yëngale stade parce que algérien bëri nañ ci biir macha allah. d' accord mais sénégalais yëpp fi ndax ñun huit bis rek ànd nañ ko ñun étudiants yi waaw kon xam loolu da lay xamal la incha allah am nañ yaakaar ne ndam dina am su neexee yàlla incha allah. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax euh, kontaan bu baax nag ñun ñu jógee ko euh, ay sénégalais mais ay étudiants lañ nekk fii ci dëkk bi mais Sénégal rek mooy ñor. Euh, ñu mobiliser mobilisation bu am solo ñëw rek pour supporter Sénégal rek Sénégal gagné incha allah. ah 2-0 daal lañ bëgg. wóor nga. lu weer laa lay wax de. non xaw nga ko rek. <laughs> ah non non bariwul baax na nu gën a baree da gën a baax. Sénégal gëm nañ ko ndax gëm nañ suñu bopp. 3-0 waaw 3-0 waa eh, Sénégal ñu leen ko. boo leen doon leen victoire rek. ah victoire rek victoire rek mais Algérie bëri nañ fi de. ah bari nañu sénégalais yi ñoo fi ëpp. waaw dañuy xumbal ba mu. parce que suul algérien. waaw ñoo leen suut yow sénégalais yi de xam nga fu ñu dem ñu xàmmee leen. waaw <laughs> ma ah kontaan rek <laughs> waaw. yow dama ko fekk ngeen kontaan rek xaaral nga di victoire bi. parce que ma déjà Alexandrie laa jóge. ñëpp uh-huh. moom bees la match bi waaw. <laughs> xam nga Sénégal ba fu ñëwee dañ naan Dakar moom fi ne Dakar la. victoire. dem ba final incha allah. yow nag yow nag kii Aboubacry la tudd. Aboubacry waaw loo gisee match bi. Sadio Mané 2-0 waxal Sadio Mané yaay papam. waaw man may papam waaw man may papam. maa ngi ñaan yàlla Sénégal yi yëpp maa ngi wax Sénégal yëpp ñu vraiment ñu supporter Lions yi ñaanal yàlla yàlla yàlla defal leen ndam ñu gagné coupe bi li nga xamee mos am Sénégal ren mu doon suñu chance incha allah Sénégal yëpp nañ booloo bokk xol ñu ñaanal Sénégal parce que ñun Sénégal amuñ dara mooy Sénégal Sénégal rek lañ am. bu wax dëgg yàlla maa ngi ñaan ñëpp mooy Serigne Seck mooy képp koo xamee daal yaakaar nga yaakaar nga daal boo demee di ñaan daal Sénégal am ndam. ñu ngi ñaan dal Sénégal am ndam loolu lan lañ soxla incha allah jazakumullahu anna kullu xayri barakallahu fiik jazakumullah salaamaaleykum wa rahmatullah ah gis naa ne Sénégal incha allah dana gagné 2-0 mbaa 3 mbaa 3-1 incha allah incha kuy dugal waaw ah, loolu nag moom nañ kii rek lépp importance mooy victoire rek mais ki dugal bëri nañ ci de mais ah sénégalais nag bari nañ fi mais donte algériens yi kii nañ fii ñu ngi ci bët. ñoom ñu ngi yëngal ci bët déjà. ah incha allah ñu ne bu ñu diggee yëngal rek. incha allah incha allah. waaw xam nga rek sécurité bi fii moo tax quoi sécurité bi di naari seen sécurité bi dafa jafe trop xam naa problème bu fi gars yi amoon premier match yi xam naa moo waral lii yëpp quoi mais dara Sénégal jaral nañ ko ñun quoi. di ngeen dugg wala c'est sûr que di ngeen dugg wóor na la. ah seen ticket c'est sûr que di ngeen dugg. dëgg la wóor na di ngeen dugg wóor na. mais danañ dugg danañ dugg c'est que sécurité bi moo mel noonu mais Sénégal jaral na la ñu ëppalee quoi motax da ngeen dugg inshallah ok merci jari noo gisse ah mais senegal len gis mo gagne moy wara a inshallah ta mais yakarna 2-1 ba quoi man mom la yakar kuy yakarna Mané Mané par yaa Mané la dal la yakar ne dana dugal quoi waaw oui jërëjëf gna yow nak wa way merci bi vraiment content nañ torop si vraiment amad Algérie parce que kan bi passé ñom lañ jëlën ñu door leen vraiment merci bi di yoon parce que revanche la quoi oui mais vraiment na woon fa woon rek incha allah def nañ benn mobilisation bu rëy yaakaar naa ndam incha allah amul lenn ñu ragal incha allah. mais bi lan la parce que fi ngeen dugg fa ngeen duggee a duggee. que jaabante moom naar moo mel noonu quoi wóoluñu kenn wax seen autorité yi tamit boo jógee fenn comme réew réew dañuy yaakaar da nga fi àndaale lu ñuy tere ko ak jamono bi tamit fi mu toll nii dara wóorul ko mais vraiment métti na trop tamit jigéen ñi nii a xale yu ndaw yi xam nga vraiment daw na yaram quoi mais incha allah nañ dugg incha allah. ndam laa gis ok jaajëf merci lan mooy lan moo tax ngeen taxaw fii ba heure bi dugagu leen yéen a ngi yor ay ticket li tax ñu taxaw fii dugaguñu problème mu organisation ci naar yi parce que ñoom dañoo bëgg lu organiser wu dañoo bind ci euh, carte yi daraja saalisa yamin bu ne yamin mooy droite kon nii la ñu war a demee defe naa mais en avant nii lañ ko defee ñoom dañoo def essence pour ñu pour ñu nekk daraja taal te ñu nekk troisième position duggee nii léegi moo tax sunu taxawaay fii rek mais dañuy dugg incha allahu rabbi amul benn. parce que côté bii nii côté droite bi ay supporters algériens laa fa gis côté bii nii. non lu benn essence la bu ndaw bu naari def naaru égyptien yi def ci organisation bi léegi léegi moom la ñuy. quoi bañ ngeen

rafetlu naa ko aussi tamit am naa si yaakaar lu ñu wane premier match su ñëwee deuxième match su dëggal seen bopp parce que naar yi ñun duñ seen morom te dinañ ko wane ñu ngeeg Sadio ñu ngeeg gars yi ñu am talent ñoo xam ne ñu ñu gëm seen réew leen waaw ñoo xam ne ay gaynde leen te dinañ ko wane comme ñun nuñ nekkee gaynde incha allah. mais gis naa da ngeen taxaw fi di traîner tamit am ñaa ngi ne dañoo jaaw si ticket dafa am ay fi côté droite ngeen doon duggee ngeen ñëw ñu leen ngeen demaat côté gauche loolu la loolu la wa. non non non foofu lépp mat na waaw gars yi matal nañ seen seen duggee. ngeen duggee kon. ñun nii la ñuy duggee inspi nii côté droite way ngeen duggee. oui lépp mat na macha allah instant yi dem gagné rek moo des. Ah. incha allah te day am. Sénégal jëm waaw.